par exemple xoolal euh, cinq sages yi mooy nu mu tuddati cinq sages la xaw ma. Omar euh, euh, kii nu mu tuddati ñoom ñoom Abdourahmane Diouf. waaw Abdourahmane Thierno Alassane na Thierno pour pourtant ñoom ñeent nii buñ taqaloo woon noonu kenn ku nekk dem say militant liggéey ñoom ñeent ñëpp mën nañ dugg ensemble mais tey Abdourahmane moo porté moo porté coalition bi mais na alsaan mi jiitu il faut Abdourahmane troisième troisième la jël day dem wuti jigéen joo xam ne xamul tojul fenn nga jël ko teg loolu loolu waru waruñu ko nangu. mais ci formation politique yi sëñ Bara am na soxna yoo xamante ne léegi déterminé ñu ngi ci biir ci liggéey. am buñ déterminé nañu wut seen mais ci biir ngay wax euh, ne nañu wut seen liste defar ko te dem tam bañ a nekk liste boo xam ne ay dañoo war a bañ boddi compte ci suñu biir mooy defar list boo xam ne ay góor doo nga fa nekk. mais est-ce que il faut ay jigéen nangu. ay jigéen ñoo xam ne soxla woo leen yow sa parti ba leen soxla assemblée parité di la forcer nga di leen dugal pour ñu dem assemblée mais doo koy gis jigéen ñi bu ñu demee foofu sinap la def toog di seetaan man gis naa député boo xam ne Pod Marichou théâtre yi yëpp moom buy eh, eh, la koy mën député sama xarit député buy dem danaan doom ji télé sarsel ma kii infidèle eh, ak loolu buy dem assemblée te théâtre bu ko bu mu bëgg a seetaan ensemble lay dem teg ko ndax toogaay bi day yàgg mu ngi seetaan théâtre ba mu jeex mu jóg. mais tey jii mais loolu du yoon. mais ce que du ne bi mu ne damay tànn te du ma dellu si waat si yéen ngeen validé. est-ce que loolu forcément loolu moo mënoon na nekk. parce que dañoo defar liste bi génne ko coow ne kur Macky Sall mi liste bi mu def kan la ko won kan la ko won ku mu ko wanoon rek balaa ñoo yóbbu liste bi parti ba tàkk mais kon ah. taxawu Sénégal am nañu problème. taxawu Sénégal amul benn problème xam nga mooy problème bi mooy. su Macky Sall bu defaree liste bi moo yor décret yi yor lépp mais bu génnewoon woon na bi ah man lii laa bëgg a déposé nga gis Thiès di boy Louga di boy fépp yi boy ñu ne man du ma nangu lii. li mën mooy dañuy am benn kilifa bu ñu wéeru mu jël defar liste bi dugal ko après dina am ay coow dina am conséquence ñu seere ko mooy comme réunion bi nga dégg ñu woote ko noonu fay bu mu fay yi des na danañ déggoowaat ci yeneen accord mu jeex. mais defar liste bi génne ko dañoo defar génne coow tàkk. Mhm. ñi ne du ma nekk fii ñi ne du ma nekk fii ñu demaat tas li ñu defaroon defaraat ko indiwaat ko mu tàkkaat. tey li xalifa defar ko dem déposé ko léegi nag problème bi mooy gis nga parité bi day def ki war a nekk cinquième dixième la jëm ki war a nekk dixième ma nga jëm vingtième. loolu ñoom li faut ñu comprendre kon jàpp nga ne lii yëngalul yeewi. waay yëngalul mais Macky Sall waaye yeewi nañ xam ne mi ngi ci seen kaw bu baax dama lay jox exclusivité. Mm-hmm. prochain ministre de l'intérieur Sénégal. ci mm-hmm. après campagne bi mm. ah bu changement amul. Mm. yeewi lay jógee. yeewi lay jógee. waaw ministre de l'intérieur bii war a ñëw remplacer Antoine Diome Macky Sall mi ngi wax ak leader bu nekk yeewi pour def ko. ci ñi mer bu la bokk. du ma la tuddal kenn waaw. yeewi lay jógee. yeewi jógee politique nag day du du ëmb day xëy wasit mën naa dem résultat élection yi soppi dara mais actuellement fii may wax ak yow ah am na kilifa gu nekk euh, yeewi joxe na accord am pour dem nekk ministre de l'intérieur. te ba léegi mi ngi ci biir yeewi mi ngi ci biir yeewi investir nañ ko ci liste yi. am ah, du ma la tuddal de. mais damay laajte rek ndax investir nañ ko ne ma investir nañ ko wala déet. ci ñi mer ngemb la ko la yem. ñu investir ba bari nañ ko rek ñu naan est du Sonko ñu naan est du Khalifa. non Sonko moom c'est écarté d'office. lu tax. Sonko. Ah. <laughs> xalaat nga Sonko liggéey ak Macky Sall moom wax na wax na boppam. bi ah, kon naa yow Sonko doon nga wóolu ci kii bi est-ce du est du Khalifa ah da nga am dut ci Khalifa yow. Cheikh Bara bu ma dugal. damay laajte waaw ku ci nekk da nga fësal sa faral sonko kon ndax yow yaa ngi ni mënee sonko sa sa conscience moo ne moom du sonko teg ma la place mais tey jii dafa am discours yoo xamante ne non dafa am discours ku ci nekk ak yow sonko sa conscience dindi na la du sonko teg ko ne parce que moom moo ko wax ci làmmiñam xam nga moom kii wax ci làmmiñam ak ki waxul du benn en tout cas daal yeewi mën naa am tuuti problème mooy am na ñu nekk ci biir yeewi te seen digganteeg Macky réeroo wa ci loolu dafa am dégg nga ma. waaw. Euh, gis nga dafa am benn calcul bu ndaw boo xamante ne day am mooy nit ki dina nekk ci biir kii bi ñuy investir ko ci liste boo xam ne wóor na ko ne du baax. Mhm. du dem léegi xam na ne du nekk député te boo nekkee député duñ la mën a fal ministre. Mhm. Macky Sall dafa am ñu nga xam ne. noonu non mën nga. démissionné da ngay démissionné waaw léegi nag looloo da léegi yow orien xam nga da xam ne même yow liste bii nga bokk même bu fekkente ne di nga nekk député mais après da ngay parce que ministère ngay dem ngay nekki mais yow député gii da ngay ànd ak par la forme mais da ngay da ngay salteel da ngay nekk ci liste bi mais da nga fay mel ne lu koy xeex loolu la mais en tout cas yeewi problème parce que moom li dal makk Sall leen dal kon da ngay xam ne li nekk ci Macky Sall nekk ci ñoom mooy bu dee cohabitation day am yeewi askan wee koy def coow li topp yeewi ni toppul Bougane toppul Aar Sénégal toppul Pape Djibril toppul Bokk Gis-Gis kon yeewi moo mën a daaneel Macky Sall. mais ak lii nga wax nii. ku ci nekk kon euh, yaa ngi xool sa morom bët boo xamante ne wóolute amu fa. Mhm. kon cohésion bi ñu gisoon ci seen biir déggoo bi ñu gisoon ci seen biir. ci mhm. élection législative yi. Mhm. ndax njortees nga ne dinañ dem ba àggaat fa. non loolu koy ndax fi mu nekk nii cassure bi am nii. dafa rëy ba nga xamante ne dama koy pour ñu bañ yenn bukki yi sàngoo deru bay bu ñuy wax ñu xam ni kii bukki bu sàngoo deru bay la waaw. askan yeewi askan wi baat bi ci mujj moo ci njëkk mooy askan wi rek la. la. ñooy fal ñooy folli ñoo wane benn doole buñ ko jox ci élection législative locale yi jàll. Mhm. ñi ngi yaakaar bu fekkente na lépp jaar na yoon cohabitation mën naa am yoon bu njëkk ci Sénégal te yeewi askan wee ko fi indi. Mm. voilà ci baatin luñ la ci woon. non non man waxuma baatin. saayir laa waaw mais si saayir nga wax ba pare man maa la laaj ci baatin. baatin moom xoolaguma ko. xoolaguma ko bu jegee nag <laughs> même ba ma ko xoolee <laughs> dina ma du ma toog ci bët bi di ko wax nag moom. <laughs> Euh, mais daal bu dee chiffre xam nga dañ ne góor day fen jigéen di fen waaye chiffre du fen